waaw nga may ma d'abord ma wax ni malheureusement fekkewu ma premier match bi parce que xam ngeen ni le Sénégal est en deuil avec la perte euh, de mon frère et ami Mamadou Moustapha Ba donc ñu toogoon di xaar euh, euh, levée du bi ak enterrement bi yàlla dogal lu muy dogal donc démb bi beneen décision ñu jël ko ñu ne taxawal ñu daw ñëw encouragé xale yi ñaanal leen door a delluwaat premier match bi nag li ma koy wax dama koy bamtuwaat rek ndax wax naa ko keroog nee naa leen euh, dafa am un fossé important entre le football féminin marocain et notre football féminin te muy dëgg wax naa leen ni il y dix jours à peu près l'équipe nationale du Maroc dafa daan équipe bu Sénégal 7-0 loolu di mandargal rek li ma wax ne différence dafa am différence de niveau te li wundu loolu yëpp ma waxaat ko bamtuwaat ko encore une fois c'est le niveau de préparation c'est des infrastructures te boo leen gisee fi ñu taxaw fii muy Widaat bu Casablanca muy Widaat bu Médina parce que Widaat may fàttali ne Widaat Médina la ñu juddoo boo gisee infrastructure yi ñu am rek nga xam ni ñun li ñuy war a liggéey des na lu bëree bëri bëri bëri donc du ñu am gàcce du ñu rus si défaite bi ñu am premier match léegi nag mu des yeneen match yi ñoo xam ne xëy na yàlla xaw na yamale suñuy doole jàpp ne war nañ si mën a jëlee ndam donc xale yi wax nañ ko waxati nañ ko nee nañu dinañu xeex lu ñu mën bu ko defee match bii di ñëw comme équipe bi ñuy dajal tam dafa amoon première défaite ñu am si ndam euh, door a engagé dernier match. ñun on est même obligé d'avoir confiance parce que dañu ñëwoon Coupe d'Afrique pour am ndam ñi njëkk a dajal am doole trop par rapport ak ñun ñu jàpp ne ñii ñëw xëy na mën nañ def dara si donc confiance bi mi ngi fi gis naa xale yi gis naa nu ñu entraîné woo tey maam si mbégte lool euh, ñu dem engagé match suba bi avec sérénité euh, avec lucidité te xam ne on représente le Sénégal te dara warul ñaw war ñu mën tegale ñaari defet dañ def daal lu ñu mën yàlla dogal incha allah mais défi bi mooy ñu jël si ay leçons yu mat parce que c'est la première participation xam nga man gis naa yeneen équipe bi c'est des équipes encore une fois très puissantes parce que tout simplement dañu am ay moyens ñun compétition bi même buñ ko buñ ko gañewul dinañ am tuuti moyen année prochaine yoo xam ne mën nañ gën a préparer dellu si waat te jàpp nañ bu ñu dellu siwaat dinañ xam fi nga xam ni moo sooxe ñu boucher ko régler ko te buñ ñëwee mën a euh, am ay compétition boo xam ne am na solo encore une fois donc leçon la no yow gis naa nga bind ko dem li nga wax mooy dëgg mooy li Mandela waxoon on perd jamais on gagne ou on apprend te def naa loolu moo ñuy indi fii Maroc euh, dinañu jàng xam compétition ni muy demee duñ demee tirer si ay leçons déwén bu ñu ñëwee gën a am doole. encore une fois demander aux Sénégalais ñu ñaanal ñu ñu ñaanal ñu bu baax a baax parce que on a que des bu ñu ñaanalee xale yi def jom si biir terrain bi ñu am dam donc je lance on appel encore une fois au peuple sénégalais parce que les aigles de la Médina aujourd'hui représentent le peuple sénégalais te Sénégal fu ma amee ndam rek ñun mooy suñu mbégte mooy suñu fierté.